comme ñaa ngi lay ger di la nuyu. delloo ziar bu baax a baax maa ngi leen di fay nuyu. alors euh, tey jii nga ñëw euh, sa wasila jige fi nga xam ne moo di Darfour gannaaw euh, li nga xam ne moom la fa def mu di réconcilier des tribus yoo xam ne dañoo nekkoon ci guerre tey ban yëg-yëg nga am. alhamdulilah rabbil alamin salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi am mbégte beneen yoon bi ñu bàyyi dimbale bi ñu bàyyi terale bi nga xamante ne si dalal na dënn yëpp dënn góor yàlla yëpp def ci laa ilaaha defal na ko waa Angleterre defal na ko fépp Darfour mu ngi mel ni euh, benn pepp ceeb la woon rek ci benn saaku dañ doon xaar àpp bi jot ndax meññeentaf kenn du ko witt te fekk na ñorut da ngay bàyyi ba mu ñor ñu daal di koy witt moom moo nekk xalifa bi nga xam ne liggéeykat la xalifa bi nga xam ne bu ñëwee dafay dalal lépp. Ah, di nga ci dégg ay rumeur ñu ne la ONU def na nangam ak nangam waaye dafa am leneen loo xamante ne si boo ko bëggee buddi te xamoo fu ren bi nekk da sono sa bopp ren bi fi mu nekk nag Maolana Cheikh Ibrahima moo xam reenu xol yi fan la nekk mu buddi ko daal di ciy def mbootu la la tey kontaan lañ contentement rek lañ am ñu ngi kontaan beneen yoon ci non seulement ñëwam bi mais li fi mbokku taalibe yi ay ñaata wàllu yàlla tey ñoo taxaw ci rond point bi ñaata zikkar nga fi dégg na coupe d'Afrique Sénégal jàmm ngi amaat waasoo yi ku nañ euh, li nga xam mooy weeru koor tey tamit na Baye moo am ndam tey yoon bi diggante dakaar la ba foofu amul lu dul kontaan dañoo kontaan rek moo tax tey ñu nekk fi naka bi ak euh, mbokki taalibe yi ni ñu lajee fii. loolu mooy yoon Baye ci loolu la ñu yar xam nga secteur boo gis bu nekk dafay am dafay am chef bu fa nekk ñu mën ko wooyee xutbu wala yaa xam noo ko wooyee euh, ñëpp dañuy dajaloo fii pourquoi parce que liggéeyam bi mu def dañ koy am tàmbali la rek xëy na mënuñu wax lépp mais am tàmbali la lu bëri mu ngi ñëw sëriñ bi war koo mën a def ñun tamit exemple la parce que Sénégal dëkk bi wax bi dafa bëri waaye jëf bi bëriwut léegi nag il est temps que ñu war a xam ne jëf bi moom moo war a gën a bëri ko wax bi. alors mu def benn prouesse euh, jigéen Sénégal dem rek la loo xam ne nekkul biir Sénégal. tey ban jàngal la ci politiciens yi war a jël tey. <laughs> waaw fa mu ci biir àdduna bi la nekk ah sëriñ ñi dañuy dox ci xadaraat yi. sëriñ yi dañoo taxaw ci wilaayatu yi looloo gën ndaw Darfour du dara Darfour dëkk la rek bu am xeex ah dëkk la boo xam ne boo fa nekkee taalibe Mawlana Cheikh Ibrahim dañ lay yëkkati xam nga li ëpp solo mooy dënn góor yàlla bi defar nit moom moo gën a garaaw parce que boo defaree nit defar nga société moom la euh, euh, ma Gandhi doon wax mu ne boo defaree benn góor defar nga benn kër mais boo defaree benn jigéen defar nga benn génération lan mooy góor lan mooy wilaayatu jigéen loolu baatinu baatin bi Baay Ñas moo ñu ko xamal bi mu demee Darfour gis nga cinquante tribus mu dajale gis nga ministères yi mu dajale gis nga nit ñi mu dajale mais loolu la dajale Sénégal séeréer yi ñu ngi fi wër la xaalpulaar yi ñu ngi fi mu wër la mais benn kaddu rek la ñu bokk muy laay la laa ba foo mënti toll loolu ngay dégg ñuy zikar loolu moom moo ñu animé nañu bàyyi xëccoo bi nañu bàyyi sama sëriñ mooy diw yàlla rek moom moo fi nekk yàlla rek la ñu xamal bëggante bi gën a ëpp solo moo nekk bëggante ngir yàlla bëggante ngir yàlla kenn mënu la ko xamal lu Mawlana Cheikh Ibrahim Niass Soudan dëkk la ci dëkk yi Angleterre moo gën a sori Soudan te ñoom anglais la ñuy làkk Nigéria sori na ñaata taalibe fi nekk Corée ba ci biir Corée boo burgee ba ci biir Malaisie am na fa maa ngi nuyu waa Malaisie loolu moom moo gën a sori waaye sama sëriñ mooy diw man maay doomu diw def naa dara xam naa yàlla moo ko ëpp solo te sëriñ bi loolu la ñu defal moo tax am nañ mbégte mooy suñu papa moom mooy suñu xalifa instant ñu ngi koy xentu ñu ngi xentu mëdët bi ñu ngi xentu wilaayatu bi di ko xaar mu wàcci loolu noonu yëpp ay tëbbuwaay la rek ñu tam ñu gën a góorgóor ñu liggéeyal ko triomphe de la foi yàgg naa triomphé bàyyi yàgg na gis nga nit bu solo ba rafet boo filmé tànk yi rek teg da ngaa soxor nañu filmé Cheikh Ibrahima Niass nañ ko wane bu ñu soxor nañu wane bàyyi xam nga li ma ne est du pour dara du waxu nafsu de mais nañu waane Baye Niass nañuy bàyyi def benn flash info rek jàllale nañuy def na Sénégal yëpp def direct ci Baye Niass buñ ko defee mooy yoon buñ ko defee defuñ lii yoon. wane seen bopp gis nga Sénégal instant bi jàngat na ndaw ñu jàngat xoolal fii ñaata karo bu ñuul moo la wër ku ci nekk mu ngi xëj sama parti mooy diw sama parti mooy diw lan moo tax te indi wuñ Mawlana Cheikh Ibrahima li mu liggéey kon ce qui veut dire ñoom seen bopp lañ fi tamit nañu muus.